gëdd ba nga xamné euh, dinañu euh, xam fan lañuy tek ba faat ñu du yomb bu mel rek euh, faat doomu Sénégal dal day rester impuni jërëjëf Kebs ma ngi lay maa ngi lay ndokkeel di le féliciter ci liggéey bi ngay def dans la diaspora mhm. je parlais tout à l'heure avec Awa Ndiaye et son mari Ndiawar qui sont à Tenerife qui travaillent beaucoup avec les services de l'immigration ñu may wax li nga xamné ne yéen ngi koy waaj té Awa di jàmbaaru fàkk tëdd moom Ndiawar ñoom Momar Dieng Diop ci la ñuy xëy ci la ñuy gont suba ngoon guddi bëccëg autant à Tenerife qu'à Fuerteventura donc yow da nga am légitimité pour wax ci affaire bi mm-hmm. waaye nag li ma jàpp mooy bakkan moom suñu borom moo ko moom mm-hmm. premier élément bu fekkee dem na ba egg tàmbali liggéey wala liggéeyul mu dem ci béréb yoo xam ne ñàkk xam réew ma na mu tëddee tax na mu dem fa wala mu dugg ci activité yoo xam ne ñàkk xam réew ma na mu tëddee tax na mu dugg ci yalla indi ab dogal ci mom mu faatu ñak préparation de nos candidats à l'immigration bokku na ci lolu ci lu bari dañu xëy dem am passe dem ci dëkk yu amul visa wala ñu wut visa wut ko leen ko wutal ñu am dem taxul ñu préparer leen ci dëkk ba ci làkku dëkk ba ci habitude dëkk ba ci et cetera bon y a y a des choses comme ça qui arrivent naka lañu mëna fexé ba lolu ba ñu mën di élucider faatu suñu mbokk yi nekk bitim réew nous ñu doter le ministère des affaires étrangères de moyens suffisants pour recruter des avocats et des enquêteurs parce que dans beaucoup de pays la police de def enquête yow itam ngay def sa enquête Nous ñu Nous ñaari enquête yëpp policier bi taxaw sa enquêtes, sa détective privé taxaw rapports, qui ñaari rapport yi qui ban moo ci gën yenu maanaam bu moyens yooyu amul consulat yi amuñu moyens pour donner un avocat bu fekkee prison bi dafa sore amuñu moyens sax dem kenn ci ñoom koo xam dañ ko jàpp parce que y' a pas seulement que les que les morts am na ñoom bu pour indi leen c' est la croix et la bannière seen i mbokk du ñu xam sax ban interlocuteur la ñu am mhm. man avec les rapports que j'ai avec les fonctionnaires des affaires étrangères mais j'arrive à faire rapatrier beaucoup de personnes qui sont décédées à l'étranger ci seen ndimbal ñoom ak kàttanu suñu borom mhm. mais ce n'est pas ipso facto que quand il y a un meurtre il faut nécessairement l'élucider on a un membre très proche de notre famille dont le meurtre est toujours laissé non élucidé. Mhm. L'enquête se poursuit, ça peut prendre le temps que ça prendra, la perte est, définitive, la plaie est encore béante, mais c'est cela aussi la vie quand on décède à l'étranger. Mhm. Même Sénégal on a une excellente police parfois nous c'est très compliqué. Mhm. Mais bon, on est, moins sophistiqué quand même, autant dans la délinquance que dans les moyens de police pour résoudre un conflit. Mais, globalement, les KEPSOA, est-ce que les Sénégalais de la diaspora aujourd'hui, dans l'élaboration des politiques publiques, est-ce que ont le retour Est-ce que Djel en charge de façon vigoureuse les surtout contribution qui sont J'aurais préféré que mon ami euh, Moïse Sars soit là pour répondre à cette question. Parce que par élégance, je ne peux pas parler d'un département que j'ai eu sous ma charge. Je ne affaires étrangères, je ne